ak ku amul jabar bés bi yoon ko nay dikkal way ay dikkal dikkal way ay dikkal dikkal way ay ñëwal eh, jërëjëf <laughs> macha allah monsieur le père sañ Senghar. waaw jërëjëf merci <laughs> alhamdulilah. dëgg yàlla. <laughs> lay walay. asadaam ah, yi la baax na. waaw baax na jërëjëf waay. jërëjëf <laughs> mbokk yi mi ngi noonu. tey nag dana dalal koo xamante ni nii wax dëgg yàlla ci mim réew kenn dootu ko présenté kenn di expert nag ci wàllum célibataire jàngat ci xam ko wax dëgg yàlla maîtriser ko tey jëmm ji toog lu la ci waxul keneen du la ko ci wax. monsieur le super maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Thiamas ndax bés bi lu ko waral mooy Nations uni moo décrété ne bés bi tey nga xam ne mooy le 11 novembre mooy bés bi ñu jagal jigéen ñi amul jëkkër ak góor ñi amagul soxna. dëgg la kon tey boo ma ci invité te sama xam-xam màcc ci li nga xam ne moom mooy sëy ak li nga xam ne moom mooy régler problème mu sëy ak manqué jëkkër ak manqué jabar ak divorce ak li nga xam ne mooy fidélité ak infidélité man loolu laa jàng fi nga xam ne mooy université de Houston def ci 4 ans ba pare jaar université de Belge ñëw fi nga xam ne nag moom mooy dëkk bi ëpp divorce ak dëkk bi ëpp mariage ci àdduna bi mun naa la ko wax muy fan laa ilaha illallah bu dee dëkk bi ëpp takk ci àdduna bi fi nga xam ne euh, chaque chaque dimanche dañ fay takk lu mot téeméeri sëy mooy Île Maurice Île Maurice dëkk bi nga xam ne bés bu nekk mu am téeméeri nit yu divorcé dëkk boobu dinaa la ko jege na la te boo fay dem tamit li ngay paas bëriwul. laa ilaaha illallaah. monsieur le super tey nag nu bëgg a waxtaan ak yow célibataire yaa ngi lay déglu yu góor ñi waaye célibataire yi jigéen ñaa ngi lay déglu ana monsieur le super wax dëgg yàlla lan nga ñuy wax ci li nga xamante ni mooy célibataire gi bari. waaw parce que benn. benn lislaam dafa jaaree lu am solo. muy ndax suñu borom dafa yónni yonent bi. le prophète Mohamed paix et salut sur ne ko jaam yi de bu ñu bëggee lu gaaw. Mhm. bu ñu tollee ba ci benn at. bu nit gisee ku mu bëgg. wala mhm. gisul ku mu bëgg bàyyi ja ca boppam. ak nday ja ca boppam bu ñu waxtaanee. Mhm. ca la nga xam ne moom la ñu war a def. ci jigéen bu toll ci war a sëy. am na fu ñu ko a jaarale loolu boo ubbee ci alxuraan dañ la koy wax dëgg la nga dem ci bible ñu wax la ko mhm. mais boo génnee ci loolu nga xam ne moo ñu tënk ñu diine mhm. diggante nit ak nit même bu nekkul ci diine ñaar ñoo tardel ñaar ñi bu dee ku góor bu ak jigéen muy ban ak ban bu dee ku góor ki day seet ñaar mu ñaar ndax mbokk la benn ci ay mbokkam dëgg la ndax mbëggeelu mbedd la ndax mbëggeelu mbedd la surtout waaw parce que caamaas mhm. góor moo yor xolu acier. nga góor moo yor moo yor xolu acier. xolu acier. jigéen yor xolu weñ. nga waaw waay la li la super. mais du góor yëpp yor xolu acier. du góor yëpp ñoo yor solo. parce que acier fu mu fekk weñ jàpp ko. jàpp ko ne ko te bu fekkee ne da nga yor xolu acier kon doo mën a jàppandoo ñëpp. dëgg la. am na ñoo xam na seen xol xal la. xal la ñii seen xol ndox la. ndox la bu xal ak ndox dajee ndox ma mën naa fay xal ba. dëgg la maanaam tey caamaas yow yaa yor xolu acier maa yor ma acier mama ngi mi yor xolu weñ xolu weñ boo ne jàkk mama mama na la jàkk mhm. li muy njëkk def mooy reetaan laa ilaaha illallaah yow nga ree nga ne ko loo tax nga may ree mu ne dara nga ne ko yow neex dara nga <laughs> a neex dara dégg lii noo sant mun la njaay fekk caamaas Diop la sant dégg lii nga ne ko yow njaay nga rek yaa ngi lekk di ma a ah yow jóobéem de yaa ngi yow nga ne lii xam nga ngeen kalante kalante kalante kalante ba kalu eh, la laa kubar laa kubar loolay indi foo dëkk foo dëkk kii na Arafat kii na golf dégg lii xam nga diw eh caamaas na la yow diw ko sama sama sama sœur la sama sœur la mu ne pourtant ñoo jàkkaarloo kër dégg lii ah, yow ku baax nga yow doo diw mu ne waaw eh, digg lii yow kon da nga teel a màgg de kii ne ah yow lii këpp ngeen joxante numéro joxante numéro soo leen joxante numéro ba waxante mm-hmm. fekk sa xolu acier ba mm-hmm. jàpp na xolu weñam ba mu am magnétisme magnétisme maanaam yow yaa ngi ñot di moom xolom mu fekk si la mamaa mm-hmm. kaay pour ma def démonstration bi caamaas ngi nii xale bu jigéen baa ngi nii yéen a ngi wax mais sa xol mu koy xëcc moom day ñëw loo ko woowee téléphone mu lay gën a jege nga koy woo téléphone mu ngi gën a jege mm-hmm. dana dem na ba nga xam ne li dox seen diggante mm-hmm. pour yow nga mën koo jàpp mooy farata ak sunna la ilaha illallah les super kenn du yow léegi yow caamaas mm-hmm. la nga yéene kii yaa ko xam dëgg la kii moom tamit moo war a xool fa caamaas xolam toll ak xelam toll ak fi poosam toll ak fi lislaam tollale poos yi pour ñu mën koo faratal mu la ilaha illallah surtout waaye nag nanga am autorisation parentale ci kii. ah na am autorisation parentale ci moom. na nga dem wax ak ay waajuram ba pare. dëgg la moom mu ëlbutiku moom day ëlbutiku wax ak ay waajuram. dëgg la ay waajuram xool ndax moom mën naa toll ci kaw ñu joxe ko. dëgg la bu yéexee sëy kon responsabilité bi day nekk ca waajur ba ndax moo ko téye. dëgg la bu teelee sëy day fekk xëy na waajur ba ca boppam ñaanal na ko pour mu dem. pour mu dem sëy yu bëri yoo xam ne dañu war a ànd. Mhm. te waa waajur génn ci tànkam nii ñaari ay bëggante bëggante mën naa dem mais barke ba day taxaw fële ci ginnaaw di laa ilaaha illallaah oh waay le super waay bu sa yaay te sa papa àndu ci te sa baay àndu ci barke ba day taxaw fële sëy ba am na dëgg lii l'islam si bu ko de accordé na ko parce que dañ koo ñaan waaye barke ba day taxaw fële da xaar ah ba ci boppam moom jiri sin waaye doolu ko gis waa kay jërëjëf expert bu fekkee ne amul ku dëpp delluwaat jëli barke ba mën ngay jur di teg di sëy di dem muy nekk waaye barke ba day taxaw barke ba day taxaw barke ba day taxaw bu baay ja àndee baay ji ànd mhm. nday ji ànd kee tamit nday ji ànd goro yëpp ànd ci mbir ma mhm. buñ ci jaarale ci yoonu siraatal mustaqim sëy ba day neex gundaandaat ndax yàlla ci boppam moo ko teela a santaan ah barke day daal di ñëw waaw jërëjëf l'expert waaye léegi xale yi dañuy bëggante ci internet. ci onze billahi mina shaytaani rajim internet. ak ci Facebook. Facebook. ak ci li nga xam ne mooy taar. taar ah taar. am na koo xam ne taar lay seet pour sëy. dëgg la am na koo xam ne seetul taar taar intérieur lay seet. taar intérieur mu jikko. waa kay. dëgg ndax booy seet taar fukki at ak ñeent wala ñaar fukki at boo ko amee can la amoon taar ba tamit day ànd ak at ya. dëgg lii taar ba day dem. ñu ne aka taaru woon aka taaru woon rek ngay dégg waaw. jërëjëf expert jërëjëf expert bu fekkee taar ba dafa nekk ci biir maanaam ci jikko yooyu ñoo taaru jikko du changé mukk fekkee dafa sax ci nit ki laa ilaha illallah ndax nit ki dafa war a sëy nit ci taar war a war a sëy nit ci jikko caamaas laaj boobu mhm. nit ki dafa war a sëy nit ci taar war a dafa war a sëy ci jikko booy tànn sëyal ki nga xam ne day sëy ndax taaru jikko laa ilaha illallah jërëjëf l'expert moom daal jàpp naa ni mu ni nit bu demee bay bëgg nit war naa mën a xool jikkoom waaw ba mu doy ko waaw ba a xool taar ba waaw ndax taar ba day dem waaw waaye bu xoolee jikko ju ba jikko ju doy na ko muy jikko ju baax sunu borom mën na koo dimbali waaw jërëjëf l'expert léegi nag internet bi tax na ak sa leere internet bi waaw ay was tabak yu demee noonu heureux ménage heureux ménage madame Ndiaye lay doon ca ba muy moom ca ba muy moom toog sa lalu yaay daa day muuru sa kol ne heure ménage madame lay doy sama mi moom digg lii iPhone yi génn condition yi tegu sama copine bi maa ko dàq fuuf waa ji ñëw may ko iPhone kon man su may laaj damay laaj lu gën a fort loolu ok ñu baal ma sax ci publicité bi téléphone bi mais dafa nekk haut de gamme boo xam ne moom la xale yi jigéen ñi di wër léegi dëgg la boo demee nag ci àll bi mhm. ku mel ne Daara Jolof sama dëkk mhm. mbëlëxe mbëlëxe war a xuur baxal xuur baxal fa fekk ñoom xoyaan ak koddu mhm. ñoom ndumbe ñoom yaasin ñoom mëti mëti ñooñu xamuñu li nga xam ne mooy téléphone xamuñu téléphone dañ la sëyal te rakkal la mooñal la teyal la nga daal day am jabar ju am dégg-dégg te sëy sëy bu neex te yàlla tax lii dëgg dégg lii boo xoolee Dakar ñi ëpp li fii sëy actuellement xam nga ban côté la nekk ban côté la boo demee pikin Pikine xale Pikine moo gën a gaaw am jabar ah gone Pikine jigéenu Pikine mm. ci Dakar foofu la sëy yi gën a gaawee ah. jigéenu Parcelles Assainies moo gën a gaaw nangu sëy jigéen bi nekk Médina ah jigéenu parcelle ñoo gën a gaaw a nangu sëy ko jigéen ku ne Medina. waaw dégg lii jigéen ba nekk géeja waaye nag du xaar sax. du xaar bu mu ñëw. bu yéexee mu dem. parce que sëy mooy des si xolam. laa ilaaha illallaah doon àndal ñëpp sëy nañu moom cundum ci koñ bi day rus. da yaakaar na gaaf la ci moom ku mun fëgg mun la ay ca entrée. waaye dégg lii. waaye. waaye. jigéenu. Mhm. diggante Medina. waaw point E. point E du ma de Medina sacré point E. genre xeet ñi leen di takk duñu bokk xeet bi takk waa géejawaay waay dégg lii dégg lii ah ñoom beneen xeet la leen di takk te takku géejawaay moo gën a neex takk point a e. ah takku waay moo gën a neex takk point e ndax ki takk jabar géejawaay mhm. bu xëyee dana ngént ngént dina def takk bu saf sàpp takk bu waa cib laay laay ray xar ray gàtt def lépp sanceñ mbaboor gi ñëpp ñëw dégg lii waaye ka dëkk point e mhm. takk discrètement lay def. ca jàkka ja. bu ñu paree ku ne dem sa yoon. di gilli. ñu def seen leen di mel ab avion dem seen yoon. ah du am mbaboor. du am mbaboor di gilli. Eh, monsieur le super waaye. waaye nag barke baa ngay daje nag ca la ñu waxante. d' accord mais monsieur le super fenn rek laa bëggoon nga ñëw fekk man muy ponkalum célibataire yi nga xamante ni du ñu ci réew mi. waaw lànk ni du ñu takku jabar. wala ponkalum jigéen ñi nga xamante ni nii nekk ci réew mi lànk ni du ñu wut jëkkër. loolu lan nga leen di wax. waaw dafa am ñoo xam ne dañuy ma génnaat. dafa am ñoo xam ne dañuy jaay super waay. ñoo xam ne dañuy jaayu. dañuy am na góor ñoo xam ne tamit dañoo bëgg lu yomb. nga ni doo fi nekk di bëggante ak nii. dëgg la naan ko xaaral sama liggéey bi amaguma liggéey. Mm-hmm. est-ce que xam nga ne góor mën ngaa nekk célibataire mën nga nekk célibataire am soxna. am soxna yàlla booleel seen wërsëg affaire bi ubbeeku. waay déggal monsieur le super waay. mën ngaa am liggéey tamit am soxna ñu dàq la. nga ni wu ma ko. lépp day nekk ci tendance. dëgg moo tax waxtaan ba nga ca kaw. waxtaan baa nga ca kaw. mooy barke ba mu la waxoon day feeñ. day fe la ilaha dañ koy seet am na góor yu ay gaaf am jigéen yu ay gaaf. yu ay gaafu góor ma wax ko tey. ñëwal ñëwal mooy bëggante góor foo ko fekk nga gis loxo ba. loxo ba loxo bi. di oq doq bi. nan nii bul ci <laughs> foo ko fekk xamal ne labatkat international bés di nga ko jàpp ma la nooti eh, eh, see c'est-à-dire way di gilli monsieur jigéen boo fekk na mu naan nii bopp bi nan nii boo ko takkee da nga jënd comprimé ba ndax dana jàmmat bopp bi métt ak yaram buy kii jigéen boo fekk na muy jàpp fi nga xam ne mhm. foofu nañu euh, euh, euh, jigéen maanaam fu bébé di nampé ñu def nii jàppal nga dana la sëy lu barke jigéen ju bëgg sëy la. Ah, jigéen buy tëgal. jigéen boo fekk mu jël loxoom di ko raay biir bi. waaw jàppal. nga ni waaw. mais jigéen boo fekk mu naan dama xiif. dama xiif dama mar. dama ci bi bayil. bayil du suur du doyal. nga ni waaw. waaye góor boo fekk tamit mu naan. bayil. <laughs> maanaam bakkan bi jëm ci kaw di wàcc góor boo fekk tamit mu naan yoruma dara te yoru xaalis. te yoru xaalis. baal bàyyil. laay laay la jërëjëf expert. ñett yi nga xam ne nag moom ngay jàpp. muy góor boo gis muy def comédie. Mhm. ab comédien bu ñëwee di la seet si takk dawal gaaw. dawal jërëjëf yàlla sunu borom yow yàlla nga waxal de. bu weesoo imaam ak jàngalekat yi. digg góor bu boo bëggee am jëkkër bu baax. Hmm. tabbi àjjana utal koo xam ne comédien la. digg nga waxal de ku mel ne caamaas mbaa nga mel a keneen. ndax dina la la bëccëg bi lay bëggal la say nawle muy bëggalee ay nit yi doomu aadama yow da koy def ci yow ba pare. laay laay ndax neex deret fii ba fii wax nga fi xam-xam goo xamante ni képp kuy célibataire wër nga ciy jugi wax dëgg yàlla takk soxna mais 2021 xam naa ne sëy dina bari 2021 nag ku ci sëyul ba mois de mars ba mois de mars deuxième part bi dañuy bàyyi mars jàll avril mai juin nga commencé say juillet ba décembre vingt 2022 moom ku mu fekkul amul jëkkër bu yoo nga jël gaal gi nga jël gaal gi